Kedilen di Kedilen Ziar, di Paluak, Kedilen Pal, di leen ndokkale di bis bu tedd di bi di dajale te mu dëppoo fuki fanat ak juróom ñett ci safar mui bis bi nga xam ni cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba génn dem suñu boroom liggéey bu am solo boobu ba suñu boroom defal ko ci tawfeex gi nga xam ni moo waral li lépp kon ñi ngi ñaan ci barkeb Cheikhul Xatim lépp lu ñu fi wax mu soppi ko aw yiw bu ñun ñëpp ñu mën cee jariñu àdduna ak alaxira te lépp lu ñu fi wax lu dëkk